bu dee yiw yëm ci tofal moom sëriñ bi da ko digaloon taalibe yi ma nga tàmbalee fu mu waxe ne ku julleeti suba ci yéen na jàng bismillahi irrahmani irrahim la hawla wala quwata illa billahi al aliyil azim fukki yoon teg ci jàng inna anzalnaahu ñetti yoon وقتك نجيء كذلك بعد المغرب في سورة القدر bu jullee julli timis ba noppi it na jàng inna anzalnaahu yi ñetti yoon nga xam ne kon boo defee ci suba gi bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahi al azim fukki yoon teg ci inna anzalnaahu ñetti yoon bu timisee moom inna anzalnaahu yi danga koy defaat ñetti yoon mu teg ci ne na ngeen di jàng saa yu ngeen jullee jullik farata ba noppi rek na ngeen jàng suratul ixlaas mooy qul huwa allahu ahad fukki yoon ak ñaar loolu moom nee na koo xam ne yoroon na wérd na ko ci dolli fal yazidu alayhi koo xam ne jëlagu doon wérd te mënagu koo jël na yem ci loolu mooy fukki lixlaas ak ñaar من يأخذ منكم الوردة فليزد عليه ومن لم يأخذ الوردة فليستغني به نيو نيت كجوليتي تي تيمس بناب بناب تشين نافلة نيار ركا ركا بو نيك بي مو جانغ تي فاتيا اقول يا ايها الكافرون ركا نيارل بي مو اقول هو الله احد waxoon na it barab booy bëgg a toog rek barab mën a doon nga dem booy bëgg a toog na nga wax auzu bi kalimatillahi taammaati min charri ma xalaq soo jug nag ci jataay ba boo toogee bay jug nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka